jërëjëf waa génie en herbe ci jongante yu am solo yooyu kon mu ngi noonu ñaanal élèves yi nga xam ne ñoo ñëwoon léegi rek suñu borom gën xam-xam bi ba ñu dégg ci ay daraja yu soññu ngeen mboolem élèves yi nga xam ne itam ñu ngi teew ci salle bi kon dañuy wéer rek programme bi jëkkante ak waxtu wi jox kàddu gi Serigne Mbacke Diop Xodar su ko defee mu dalal mboolem gan yi nga xam ne ni teew nañ ci événement bu am solo bi tey fii ci daaray Kaamil bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina maulana muhammadin amin wa ala ali baytihi alkiram at-tayyibin at-tahirin zawi ridwani mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di assalaamu aleykum di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi alxalifatul am maulana cheikh mahamadil muntaqa di ñaan suñu borom sàmm ko aar ko ba naa li mu naalal lislaam ak yoonu murit meegale yépp te ñu ànd ko moom di ziyaare bu baax kilifa barab bi nga xam ne fi lañ doon taxawalee jataay xam-xam yu am solo yi di suñu waajur sëriñ Moustapha Diatara di ñaan suñu boroom gën koo dëgëral ba yéene jim am ci liggéeyal xam-xam ak yoon wi mu mottali yépp te ñu ànd ak moom di jël kàddu yoo xamante ni dañ koy jël ci turu commission scientifique bi nga xam ne ñoo doon taxawee jataay yu am solo yi te nekk ci ginnaaw sëriñ mu Moustapha ci njiital sëriñ Basiru Jatara mii ma feggool kàddu yi nag dañ koy tënk rek ci ñeenti tomb bi ci njëkk mooy dalal gan yu tedd yi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci ay barab yu sori ñëw ànd ak ñun jataay bi ñaareel bi danañ leeral it jubluwaay yi tax ñu doon taxawal jataay yi xam-xam yi nga xam ne bi koor gi tàmbalee ba léegi ñu ngi ci tey jii ñu war koo tej ñetteel bi dañ leeral xeeti yëngutu yooyu doon am yan façon yëngutu la woon te mu jëm ci xam-xam ñeenteel bi nag ñu jëmee ay cant yoo xam ne dañ koy jagleel yenn ci ay mbokk yoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mu mën a mel nii mu mel ñu mën koo gis ci gisin wu rafet moo xam ñi koy wane moo xam ñi ci jàpp ci seen doole wala ñi ci jàpp seen xel wala seeni xalaat ci njëlbeen kon ci turu Serigne Moustapha jatra mi nga xam ne moo jiite daaray kaamil ñi ngi nuyu ak ziyaare kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi leen dalal moo xam muy ay woroomi xam-xam moo xam muy ñu yëngu ci xam-xam ñu ngi leen di dalal dalal goo xam ne am na tàmbalimaay waaye amul yamukaay di leen yëgal ne te tey jii mooy bis bi nga xam ne ci lañ fa yéene tëj jataay xam-xam yii ñu dara jaale ko suñu kilifa gu baax goo xam ne ku ñu xam la ci tasaare xam-xam ak lépp luy jëmale réew mi réewum Sénégal kanam ak tasaare yoon wi yoon murit muy sëriñ Mamor mu Cheikh Mamadil Mortada doon koo xam ne bañkat la waaye liggéeykat la waaye jàmbaar la lool ñu ñaan suñu boroom sàmm ko dëgëral ko di sant mbooleem délégation bi nga xam ne ñoo fi teew teew ci turab su ko defee jubluwaay yi taxoon ñu doon taxawal jataayi xam-xam yii mëneef naa ne ba ci njëkk rek mooy dundal weer wii di weeru koor ndax weer la woo xam ne luñ war a dundal la ci di tasaare xam-xam ak it di jàngale ay njàngale yoo xam ne dafay yaatu te làmboo ay domaines yu wuute moo xam ñu jaare ko ci ay waxtaan yi ñuy def wala ay laaj ak ay tontu wala ay séminaire bu yoo xam ne day dox ci diggante yenn ci école yi nekk ci Touba wala sax yenn ci xeeti jongante yoo xam te ni dafay dox ci daaray majalis yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi jàng xam-xam ñaareel jubluwaay bi mooy fexe ba tàggat ndaw ñi rawatina jàngkat yi ñu xam ne bibliothèque bii ñu nekk barab la boo xam ne bi ko sëriñ Abdou Lahad di def defu ko fi rek ngir ñu ñëw di ko ziyaare di raaye ka dem waaye da ko fee def ngir mu doon këru xam-xam goo xam ne képp ko xam-xam saa su ne war nga fi ñëw di gëstu ci téere yi nga xam ne moo fi nekk waaye tamit di gëstu si xam ci jataay yi nga xam ne moom lañ fi amal ñetteel bi bokkoon na ci jubluwaay yi mooy fexe ba def ci gone yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi di jàng moo xam école yi moo xam majalis yi culture général bu yaat lool def ci ñoom it culture murit ba ñu mën a doon nit ñoo xam ne danañ xam seen bopp xam yoon wi nga xam ne ci lañ bokk di yoonu murit waaye xam tamit saxaafa islamiya muy culture islamique njàngaleem lislaam ñeenteel bi ci jubluwaay yi taxoon ñu koy taxawal mooy fexe ba benn école yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi di Touba moo xam muy école arabo islamique yi wala muy école franco arabe yi fi ne ngir man leen a benn la ndax jàpp naa ne jataay yi ñuy def école yu bari di ci teew di dajee di xamante seeni jàngalekat di dajee di xamante direction bi ñu ko jiite di dajee di xamante loolu mën naa jur njariñ loo xamante nii bu ëllëgee dana tax école yi mën a gën a am ak jokkoo mën a gën a ànd mën a boole seen bopp ba lépp luñ bëgg ci réew mi ñu mën koo am ca amin wa gën a yomb te gën a rafet bu dee nag jëmmi yëngutu yi nga xam ne moom lañ fi doon amal bi koor gi tàmbalee ba tey euh, li ci gën a bari dafa doonoon ay muxaadaraat ay waxtaani diine waxtaan yooyu nag commission bii nga xam ne ñoo dend ak man nekk sama wet muy oustaz Hassan Diouf oustaz Fatfat Kasay sëñ Cheikh Jatara ak sëriñ Basiru ak sëriñ Gorgui Ka ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ciy jàpp te xëy na feeñu biñ ko doon tànn doon nañ sooraale mu doon ay domaines yu wuute loon am na ci thème yoo xamante ni ci diine la jëmoon waaye am na ci thème yoo xamante ni ci wàllum social la jëmoon am na ci thème yoo xamante ni ci wàllu wér yaram la jëmoon am na ci thème yoo xamante ni ci wàllu économie la jëmoon am na ci thème yoo xamante ni ci yoonu murit la jëmoon kon ay xeet thème la yu wuute yoo xam ne liñ fi jot a jàllale ci ay muxaadaraat ëpp na fukk ak lu tegal ci muxaadaraat yi fi jot ci thèmes yu wute yooyu bokk na ci yi ñu fa doon amalit mooy ay musaabaqa muy ay jongante yoo xam ne yu wuute la jongante yooyu nag dafa nekkoon musaabaqa thaqafiya fardiya amoon na ci mooy séminaire bu yoo xamante ni dañ doon tànn ci ay école yenn yi di école arabo islamique yenn yi di école franco arabe école bu ci nekk yabal kenn koo xam ne moo koy teewal xam ne kon école bu nekk kenn la doon yabal waaye doonu toon jongante yom te ni mbooloo ñoo ko doon def par kenn la woon waaye musaabaxa yooyu dañ ko séddale woon ber école franco arabe yi ak école arabo islamique yi ngir ak maandu ak it question yi mën a gën a jàpp ni ci ñoom moo taxoon ren ñu ne nañ ko séddale beral ko benn bu ci nekk finaalu boppam waaye bokk na ci jongante yooyot musaabaxatul mutun musaabaxa boo xam dafa jëm ci tànn yenn ci téere yi sëriñ bu mag bi radiallahu taala anhu di woo daaray majalis yi ñu ñëw teew ñu leen di nat ci seenu mokkal di leen di natt ci déggu téere bi di leen di natt tamit ci ay xam-xam yoo xam ne dafay aju ci jëmmi téere boobu ren ji nag ñu tànnoon téereb sëriñ tubaab bii di Tazawudu Subbaan mu nekk ñetteelu yoon daaw ñu ngi tànnoon saadatu tulaab at ma ko jiit woon ñu noon Tazawudu Sigaar kon ren mooy ñetteelu at bi laaj yi nga xam ne tamit daan nañ ko laaj ci musaabaxa saqaafiya yi daan nañ ci sàmmonteeg nattuwaay yi ñuy waaj a tudd bi ci njëkk nañ fexe ba laaj yi doon laaj yoo xam ne dafay am sumóoliya maanaam laaj yu yaatu làmboo ay domaines yu wute lool nañ fexe tamit ba mu dëppoo ak niveau gone yi nga xam ne ñoom lañuy laaj yenn yi ci diine lay jëm yenn yi jëm ci langue arabe yenn yi jëm ci ilmiyaat yi muy matière scientifique yi yenn yi jëm ci saqaafa amma muy culture générale yenn yi jëm ci saqaafa muridiya muy culture mouridisme ak yeneen fànn yu wute lool bi nga xamee ne amal nañ yiñ doon amal ci ay musaabaxaat saqaafiya te buñ boolee ñi ci bokkoon lépp di fukki école ak juróom mbenn ndax franco arabe yi juróom ñetti école lañ ci amoon arabo islam yi ñu amoon ci juróom ñetti école soo ko boole muy fukki école ak juróom benn bu dee ci wàllum saxaafa liñ fi jot a tontu ci ay laaj mi ngi tollu ci 67 question biñ ko xaymaa buñ ci génnee finaalu tay bi boole wuñ ko ci ci limub laaj boo xam ne mi ngi tolloon ci 152 question yiñ laaj gone yi tontu nañ 67 question yi kon bu ñu xoolee dañu am pourcentage 47 virgule 7 44 virgule 7 mooy doon pour pourcentage xëy na nag loolu buñ xoolee dana dana dana am luñ ci mën a jàngee te dañ ko tudd ci kanam tuuti bu dee nag musaabaxatul mutuun yi nga xam ne moo doon am ci daaray majalis yi moom téere bi nga xam ne moom lañ tudd sàq ci lañ leen doon laaj ni mu doon demee gone gi bu ñëwee danañ ko tariloo juróom juróomi bayit ci biir téere bi su taree juróomi bayit yi ba pare danañ ko laaj ay question yoo am te ni dafay jëm ci jëmmi téere bi fan la ko sëriñ bi waaye ban bayit moo ci njëkk ñaata bayit lay tollool ak xeet yu mel noonu su paree nag ñu doo ko laaj laaj yoo xam ne dafay jëm ci fahmul kitaab indi benn bayit ne ko lan la ci sëriñ bi jublu wala andi benn baat ne lan la ci sëriñ bi jublu wala tuddal ñu bayit sàngam boo xam te sëñ bi da cee tudd nangam ak nangam ak nangam xeeti question yu mel noonu la doon doon su ko defee nag am na benn genn ku boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci mbokk yi nga xam ne ñoo doon taxawal jotaay yu am solo yi genn ku yooyu mooy ñu ngi sàkku ci mbooleem école arabe yi nekk ci biir Touba moo xam franco arabe wala arabo islamique ñu gën a sonn ci niveau élèves yi mu gën a yéeg ci domaine yooyu nga xam ne tuddoon nañ ko ndax it seetlu nañ ne am na ci question yu bari yoo xam ne ñu ngi koy laaj te gone yi ñu ngi koy jàng ci biir classe yi te buñ ko laajee duñ ko tontu loolu nag day mel ne ñàkk a muraajaa leçon yi mën naa am moo koy sabab wala ñàkk a jàng mu xóot mën na am tamit mooy li koy sabab kon loolu ñu ngi koy sàkku ci mbooleem école yépp waaye ba tey it ñu ngi sàkku ci mbooleem daaray majalis yi ñu gën a sonn ci gone yi nga xam ne ñoo fay jàngee xam-xam ci ñuy soñ gone yi ak leen ñaax ci ñuy mokkal téere xam-xam yi ñuy jàng waaye buñ ko mokkaleen ñu koy dégg ngir man koo jëfandikoo ndax su dee da nga koo mokkal te déggoo ko njariñ li bariwut waaye soo ko déggee te mokkaloo ko njariñ lu du tax mu bari lool te xam nañ ne suñ mag ñi euh, téere xam-xam yii dañ ko daan mokkal di ko dégg moo tax daan daan nga ci gis mag moo xamante ni tuuti lay jàng fees dell ak xam tey nag ci jamono da gis koo xamante ni téere bu téere téereb junne dana ko jàng waaye daanaka la ñuy wax xam-xam dëgg-dëgg du nekk ca moom ndax mokkal ga du fa am dégg ga tamit du fa am loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel bu baax a baax su ko defee nag ci tomb bi ñu daanelee mooy sant bu baax a baax a baax cant goo xam ne am na tàmbalimaay waaye amut yamukaay cant gi nag dañ koy teg ci loxoy sëriñ xaadim seet bi nga xam ne moo jiite Touba wax dëgg yàlla at yi yëpp mi ngi koy ànd ñun saabu bu koor gi teroo day bàyyi soxlaam ak yiteem yëpp di ñëw di ko jàllale boole koog seen bi nga xam ne moo nekk ci daara ji di daaray Kamil TV doon seen buy taxawu ak a tasaare xam-xam ñoo ñoo ngi leen di sant ñoom bu baax a baax ak mbooleem télévision yi nga xam ne doon nañ ko jàllale ak mbooleem rajo yi nga xam ne doon nañ ko jàllale ak mbooleem site internet yi xëy na duñ mën a tudd ñëpp ndax suñ tuddee duñ matal te it mën nañoo fàtte ñenn moo tax suñ tuddee ñi nga xam ne ñoom ñoo fi féete mooy sëñ Xaarim Seck ak Daaray Kaamil TV danañ mën a yóbbaale ñeneen ñi ci des defee ñu sant bu baax euh, yenn ci ay mbokk yoo xamante ni jàpp nañ ci liggéey bi bu du toon ñoom làmbaay ñaaw comme ni ko wolof di waxee nday liggéeyub xam-xam la bu laaj laaj na lu baree bari bu weesoo xam-xam bi commission bi nga xam ne ñoo koy liggéeye ay woroomi xam-xam lañ fiy woo ñuy ñëw di def ay waxtaan di bàyyi ko ci ay barab yu sori ñii di jugee Dakar ñii di jugee ci yeneen région ñii di jugee ci biir dëkk bi ak waxtu wi koy def waxtu wu tàng la lool woo xam ne génnee ci nit wax dëgg yàlla metti na lool ci koor waaye borom xam-xam yi ñi ngi ànd ak ñun di ñu ci jàppale bu baax a baax euh, su ko defee ñooñu nag kiñ ci jiital mooy Serigne Ibrahima Ndiaye Dakar jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax euh, Serigne Ousseynou sax mi ngi may wax ne lu bëree bari liñ liñ doon yeewee borom xam-xam yi doon def waxtaan yi moom moo ko jaayante woon te am ci ba seef lool ñu ñaan suñu borom sàmm ko fay ko aw yiw sëriñ Ibrahima Ndiaye nekk Angleterre moom it sëriñ Sohay bu Ndiaye nekk Angleterre moom jàpp na ci liggéey bu baax ak ku ñuy wax sëriñ Mbay Diba di commerçant ci marché Ocass mooy wax dëgg yàlla jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax ak société bi ñuy wax DES ñoom it at yi yëpp ñu ngi koy ànd ak ñun sëriñ Babacar ngoom jiite ko ak sëriñ ma Mandiaye ngoom di sant bu baax it sëriñ Adama Ndiaye mi nga xam ne jàpp na ci liggéey bi ndax toilette yi nga xam ne mu nekk ci daara ji moom moo ko doon yeesalaat doon ko doon participer ci liggéeyu xam-xam bii ñu doon amal kon ñooñu maneef na leen a sant su ko defee ñu yóbbaale ñeneen ñi des ñëpp Serigne Cheikh Diba moom it moo joxe tablet yi nga xam ne moom lañ fas yéene neexale gone yi foofoot ñi ngi ñaax ak a soññ bu baax nga xam ne lu baax ñor na leen lii liggéeyu xam-xam la mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo koy def euh, xëy na yéene ji nga xam ne am nañ ko ku ne xam ne ni lii ñu jox gone yi xeet nañ ko lool buñ sañoon gone yi nga xam ne ñoo bokk ci mu musaabaxa yi danañ leen jox ay neexal yoo xam ne dana duun ci wàllu koppar waaye dañ leen jox tamit ay matériel yoo xamante ni dana leen sawarloo ba bu ëllëgee buñ leen soxlaa ñu mën a ñëw lool nag ñi ñu ci mën a jàppale mooy ñi nga xam ne def lu baax ñor na leen ndax daara ji moom demul ci kenn di ko laaj naan ko kaay jox ma ma def waaye nag ku jël sa alal def ceet danañ la ko defal ci bunt yi xam ne jàpp nañ ne bunt la yoo xam ne bu ko suñu borom nangoo dana baax ci yow mi nga xam ne yow yaa koy def kon ñoo ngi woowaat ñëpp ñu gën a jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di sant bu baax it mbooleem école yi nga xam ne participé woon nañ ci jongante yi chaque année école yi bu ñu leen wooyee dañuy ñëw waaye di sant tamit mbooleem direction yi nga xam ne ñoo leen may liberté bañ mën a ñëw ànd ak ñun di sant mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne doon naa leen tudd sànq dëgg yàlla yëg nañ ko metti na lool waaye ñu ngi koy jégglu waaye xam nañ ne am na ci seen biir ñoo xam ne xam-xam rek moo leen ñoo saa boo leen wooyee luñ mënoon a jàpp nañ ko bàyyi ngir ànd ak ñun ñooñu dinañ ci tudd Serigne Cheikh Mbacke Niang teew na ci jataay bi suñu waajur Serigne Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud ak Serigne Fallou Boussa Assane su ko defee ñu yóbbaale mbooleem yeneen boroom xam-xam yi nga ne xëy na teew ñu te jàpp ci liggéey bi di sant tamit mboolem waa commission bi mooy xam ñi nekkoon ci doon tànn thème yi waaye di sant tamit bu baax a baax waa commission bi nga xam ne ñoo yoroon lu jëm ci euh, organiser jataay yi sëñ Fallou Ndiaye mii ak sëñ fallu Fall ñoom wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci lool ak jataay yi organisation bi ku ne xam ne ne mett na sëñ Ousseynou moom dañ koy beral cantuk boppam sëñ Ousseynou moom kenn mënu koo sant moom moom wax dëgg yàlla lépp mooma lépp mooma euh, sonn ci sawar ci lool yaatal gi bu amee jàpp naa ne lépp ci moom la ndax am na nu mu doon demee xay na mën naa xat ndax ñi ko man bari na sëñ Basiir mii ak sëñ Seex ñeneen mën nañ waaye yaatal gi mu ko yaatal ba ñun ñëpp ñëw ànd ci ak ñoom wax dëgg yàlla loolu lépp dañ koy delloo ci sëñ Ousseynou wax dëgg yàlla doon koo xam ne sonn na ci coono yu ne mi ngi ko ci daj ngir bëgg yëfi jàkk moom dañ koy ñaanal rek suñ borom gën koo dëgëral di wax sëñ Moustapha moo xam ne daal sëñ Ousseynou jàmbaar la ju jara ñaanal sonn ci liggéey bi lool Euh, xam naa nag kon ci tënk rek biñ santee mudir yi fi teewu ak ñi nga xam ne ñoo doon def mu modaraawul jalsa yi ñu doon woo ñu doon euh, def ay euh, coordination ak ñoom ñu doon def li ñuy tuddee modération ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax léegi su ko defee nag ci kàddu yi rek bala ñoo tëj ñuy wax ne ki jël musaabaxatul mutun bi mooy sëriñ Mouhamadul Moustapha Diouf jóge fele ca mu jàmmaaw as Ahmad al Xadim loolu nag yaakaar naa dal na xel lool mu jàmmaaw bi majalis bi daaw lañ ko tëj ren ñu def fi ay musaabaxa ci wàll téerey Sëriñ Tuubaa yi ku ko jël jóge fa loolu dal na xel lool euh, su ko defee ñuy sant bu baax Sëriñ Afiya Mbàkke mi nga xam ne bu dee arabo islamique bi di jàngee ndaam moo ko jël bu dee Sëriñ Seexuna Jóob nekk ci école excellence moom moo jël mooy sëñ bu Busso moom moo jël raw gàddu gi ci mboolem école franco-arabe yi nga xam ne ñoo ci bokkoon kon daal lii mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon andi lu ci leer ñu xam ne ci suñ borooma lu ci dëng ñu xam ne ci doomu aadama la ak ñàkk matam jàpp naa ne mbokk yi ma dendal kuñ ci joxoon nga wax danga wax lu gën a jot gën a leer lii ma wax waaye seenu mbaax rek moo tax ñu cëralee ñu ko di ñaan suñu boroom may ñu ñu teewe ko ay ati at suñu boroom nangu ñu mbooleem jéego yi lépp luñ ci def yëngu yeeg dal yi lépp suñu borom nangu ko te dugalal ñu ko ci suñuy rafet rafet te may ñu ak teewe gu rafet a rafet wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Mbacke Diop Khoudar doon wax ci kàddu kuréel gi nga xam ne ñoo doon taxaw liggéey bi bi koor gi tàmbalee ba léegi nii lañ koy taxawoo saa su weeru safar wi teroo ngir gunge weer wi waaye gunge yitam itam waaye teeroo ko bis tedd boobu nga xam ne nii mooy grand magal de Touba 18 safar ni nga ko waxee léegi rek liggéey bi ñu ko saytu fasantikoo ci ay euh, boroomi xam-xam ak ñi nga xam ne ni ay technicien lan xam ne wàllum xarale gi ñoo fi féete ni nga ko waxee sëriñ Ousseynou Diatar sëriñ Fallou Ndiaye ci organisation sëriñ Mbacke Ndiaye sëriñ Pape Gueye sëriñ Cheikh Gawane Mbacke sëriñ Xaarim sek euh, Baye Mbène moom itam ci technicien yi la bokk ci caméraman yi ak Baye Baara Diop mi nga xam ne fii la féete waaye itam ñu ngi li jaajëfal itam ñi nga xam ne ñoo yor wàllu kaaraange gi ci tuddee police ak ñi mu àndal rek doy na sëkk kon ñooñu ñoo saytu liggéey bi saa su nekk ba mu mën a jàll ci ay bërëb yu fasanti ko ci ay chaînes YouTube ay télévision ak ay rajo xam naa dañuy jëkkante ak waxtu bi rek daal di koy lim bu dee ñi nga xam ne dañoo aju ci site internet yi yore ay chaînes YouTube dañ koy tàmbalee ci daaray Kamil muy chaîne bi nga xam ne moo féete fii ci bërëb bi Touba Vision Rafa TV Hezbou Rahman TV Touba Production Académie Minan Assala Assamadia TV Siwal TV Bichri TV Rewmi TV Saxum Touba Bawul TV xam xamle TV Belal TV ñooñ mooy site yi nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale bu dee lu jëm ci télévision yi Touba TV Al yi TV Rewmi TV ñoom it doon nañ ko jàllee bu dee bi ci Touba nag mm, Touba ca kanam ñoom it doon nañ ko tàlleel doon ko jàllale ak Murid TV HD bu dee rajo yi rajo asalaam Assalaamy FM ci njiitu Baye Fallou Galass Syll RTS Touba Mbacké FM RFM Mbacké Walf euh, ñoom doon nañ ko jàllale Touba Mbacké FM ICAP kon ñooñ ñooy ñi nga xam ne nii doon nañ yaatal liggéey bi ba fu mbokkum taalibe nekk ci réew mi ak bitim réew di jariñu ci jataay yu am solo yi kon dañuy lim rek délégation yi nga xam ne nii jot nañu fee teew di ko tàmbalee ci délégation parrain bi maanaam ñi ko tuddee wax nañ leen ko ci njàlbeen mooy Serigne Mame Mor Mbacke ibn Serigne Moxtada Mbacke ibn Xaadim Rasul yebal na fi délégation bu takku ci njiitu Serigne Abdourahmane Lo Serigne Modou Mbacke Serigne Moxtada Mbacke Serigne Mohamed Diop Serigne maam Mor Ndiaye ak Serigne Mamoun Kanji ñoom ñoo fi teew. ginnaaw ñoom itam Serigne Cheikhouna Mbacke Abdoul Wudoot ni ñu ko waxee léegi teew na inspecteur Thiam IEF bu Mbacke imam Serigne Abdoulahad oustaz Murtada Silla oustaz Serigne Cheikhouna Mbacke oustaz El Hadji Fallou Niang Serigne Cheikhouna Ndiaye moom it teew na Serigne Moustapha Niang Serigne Khalil Mbacke Doj docteur Khadim Silla inspecteur Cheikh Mbacke Niang inspecteur Cheikh Mokhtar Lo Serigne Ahmed Sougou Serigne Cheikh Mbacke Darou Salam Serigne Modou Mbacke euh, délégation Rawdu Rayahin ñoom it teew ci teewaayu Serigne Abo Bousso sëriñ Mor Bousso ak sëriñ Abdul Ahad Si ba tey bokk na ñi fi teew sëriñ Jamil Mbacke euh, représentant Cheikh Abdou Lahat Mbacke Gaynde Fatma directeur IEF bu kay bu Kayre Mbay directeur Cheikh Niang euh, monsieur Diouf di professeur ca école Kayre Mbay moom it teew na commissaire Arona Diouf bàyyi ko police bu Ndaamaatu moom it teew na sëriñ Fallou Bousso Assane directeur institut Serigne Mbacke Bousso excellence daayira ahibayil xadim ñoom it teew nañ ci teewaayu baay Cheikh Bey ak Serigne Abdou Ndiaye Serigne Xadim Mbacke teew na waa wilaay ñoom itam teew ci teewaayu Serigne Cheikh Fall Taïf Serigne Fallou Ndiaye Serigne Ibra kan ak Serigne Dame Loum ñoom ñooy ñi nga xam ne ni jot nañu fee teewali kon xam naa ne mel na ni ñu ngi noddu commissaire maam Arona Ba euh, commissaire Ndamatu kon ñoo ngi jégalu bu baax a baax euh, di la jaajëfal ci rectification yi. kon xam naa ne dafa mel ni ñu ngi noddu te li des ci waxtu bi bëriwul bu sukkandikoo ci programme bi rek buñ paree dañuy won fasal lazina fasu ala siya